commune ba booy dox ba dégg nit ku feebar wala ku wopp boo demee ca moom ak nu mu mën a toll dina ko jël en charge wax dëgg yàlla yàlla nañu ko yàlla sàmmal kii daal ku mel ni moom noo ngi koy ñaanal di ñaan lu ñëpp ñu ñaanal ñu ko ndax taxawaay mën a yàgg sax ndax commune bii wax dëgg yàlla ah jàpp naa ne day bu ñu demee ba ca kanam tuuti dana nekk commune boo xam ne mooy raw ci commune yi jiitu ci commune yi ndax lii mu fay def day parce que nag fu nekk dem naa fa te fu ci nekk jaar naa fa mais képp koo waxtaanal danaan la seen commune laa bëgg a dugg si ndax taxawaay bi nga xam ne moom la fa am commune ba booy. du ma wax sa xaritam mais mbay man ak moom yaakaar naa ni on est plus que des amis on est on est même des frères plus que des frères boo xoolee man ak moom daanaka benn la ñu laa mën a wax. mbay on s'est connu en sixième ñu def sixième au collège en soixante quinze. Euh, CG Jëppal depuis boobu ba léegi tey amul lu ñu bokkul lépp ñoo ko bokk amul lu mu nekk te xaw ma ko man tam amul lu ma nekk te moom xamu ko donc amul lu ñu defandoowul du ma nëbb dara je crois que c'est un homme bi nga xam ni un homme qui de vertu yaakaar naa ni qualité booy xool ci nit rek di ko am ci mbay xëy na lend mooy tax quoi moom il s'appelait xëy na tur boobu naa ko fàttali quoi. dañ doon bind rek moom day bind Aboubacar Sadikh Omar Talla Aïda Bey foofu xëy na day jël ci papaam Omar Talla jël ci yaayam Aïda je crois que moo tax mbay c'est quelqu'un qui est vraiment euh, mun naa ni c'est un homme digne et puis plein de valeur lépp looy wër ci nit ku baax rek da nga koy am ci moom te du fàtte fàttewul nag parce que position bu mu munti nekk station bu mu munti nekk ses amis ses parents dinañ xam ne mi ngi ci fi ñu nekk nii ñun lépp lépp lépp lépp ñoo ko bokk amul li nga xam ni tey um, fii ñuy gis nga fi ñuy toog nii di wax nii ñun fi mooy suñu siège jusqu'à présent on se retrouve ici dañuy toog entre amis di waxtaan di waxtaan di di yokkonte bu baax mbay je crois que lu ñuy mën a wax si moom rek mooy nit ku baax la nit ku tey nit ku nangul liggéey nag moom des nii man su ma ko soxloo dëgg je l' à 7h30 il est déjà au port heure yooyu mooy gën a baax c' est quelqu'un ki nga xam ni moom je je lui dis booy ton plus grand défaut c' est que tu travailles trop su nekkee ci mbir loolu rek lay def amul leneen lu muy def donc mu nit ki nga xam ni je crois que plein de valeur plein de vertu. yi la màggee. fii la jànge fii la defe yépp avant bu dem États-Unis kër gii ak kër yépp amul kenn ku mën ne mu ngi may sànni bal wala mu ngi xeex ak man wala mu ngi yàlla ko yaral boppam boole ko nag am na yoo xam ne seen maam ay Aysata Si euh, da koy wax Aysata Wele daf koy wax yéen du fu leen neex taxaw te du lu leen neex def te du leen neex wax ndax kat Fawade Wele càmmañam moo jur maam seen maam Aïssata Wele moo jur ay Wele moo jur Aïda Si ak Amadou Si Amadou Si Demba Wele Demba Si moo ko jur standard man am na yoo xam ne vraiment ñun bu ñuy wax si moom duñu sonn duñu tàyyi dañuy wax rek li nga xam ne moom la def ak moom la xalaat bon nag pour mu ut maire si mbedd mi wax dëgg si kastoor gi jafew ko yàlla nag moo xam jaamam mooy maye waaye wax dëgg yàlla kenn jëppiwu ko kenn programme loolu yëpp amul si lu ñuy wax si moom daal lu mu def la lu ñu xam la lu ñu lu ñu gis mu def ko si koñ bi ak mbedd demee xale yeeg yëpp wax dëgg yàlla ñu de koy ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp di koy ñaanal yàlla ay jaboot lañu bu tiwaawoon jotee day kaa rek na sax daayira bi nga xam ne ñoo ko yor ak yaayam ruus nañu jox ñun kese kaar ku fi am daayira yof jox na la oto bu Tiwaawan jotee bu tabaski jotee noonu bu Tuubaa jotee te euh, daayira bu nekk mu jox la kaar euh, fii ba derkale nag ñëpp la def moom rus na def fenn bàyyi kenn bu màkk jotee man daa euh, bi kaa kii bi ma mujjee jox billet bi ma mujjee jox rus naa ko jox sama doom te rus naa kaa deme doomu doomu mag kii doomam laa ko jox seede la mm-hmm. sóora mu sóora Malick ki ñu tuddi man Mansour si moom lañ ko jox moom moom la demee te du daayira bi rek lay joxe nag billet màkk tuy wax si moom bu yàggee sax dinañ la day fabriqué waaye lépp lu ñuy wax quatre-vingt-cinq am naa ko tooguma dootuma fen ñaanatuma ko yàlla ba mu retraité yàgg na war na ngeen toog ba heure bi yor sama kurus naan maa ngay politique wala maa ngay kii waaye sañ nga wax nag li nga xam ne yàlla mii la tiim xam ne ne li ngay wax dëgg la te du affaire politique du affaire caaxaan du affaire dara xale la boo xam ne yàlla ko yaral boppam defoom daal moo di noppi na tey jëf ji rëy na jëfam rëy na te noppi na boolew kaaxi wax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla muy jàppal boppam yàlla na ko jàppal boppam dara ja rasulullah sallallahu ndax lépp looy ñaan rek na la Boubacar Sadikh Bèye nee naa j'ai jamais vu le DG du port ému